lillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi al ghurri al mayamin wa ala khayri khadimihi dhil habli al matin wa ala man iqtafa atharahum ila yawmiddin bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi nu borom subhanahu wa julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dellu santaat ak Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci guddi gu màgg gu tedd gu barkeel gi nu nekk tey di guddi soxna Mariama jaaratillah di jiital ci nuyoo boobu yi ak ndokkeel gi ak siyaara bi kilifa gi fi yàlla teg gannaaw mu jiite seen seen Cheikh Sidi Moussa fi nekk seen Tuubaa ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te wéral ko ba mu àggale mboolem ay yéeneem teg ci jëwriñam di ko nekkal fii di Seex Maodo Moustapha borom pastéef bu rëy bi borom taalibe bi ko sell gi ko yàlla mu gën ko dëgëral dolli ko kat nag tawfiq waaye falal ko yan di ko yàlla yan di ko Seex Maodo Bachir waaye ci kër soxna jaar nuyoo boobu ñu nga xam ne mooy jëwriñu fondation soxna jaara bu mag bii nga xam ne lii am tey ci seen yëngatu la bokk waaye seen doom ji nga xam ne moom mu nekkal leen fii di saytu liggéey bi doxin wi muy sëriñ Seex Faatma Mbàkke ñi ko waxee fas yéenee seq ak jotaay boo xam ne dafa bokk ci dundal bis bi ni ñu ko doxale ren ci exposition yi amal ay conférence fàttalante ci ci li bis bi jub ak borom bis bi conférence bii nuy bëgg a def bokk ci yooyu thème biñ tànn war ko waxtaani mooy soxna jaara al qudwatu diiniyatu wal xuluqiya soxna jaara doon gi mu nekk doon gi mu doon ab royukaay ci diine ak ci wàllu jikko loolu nekk tomb bu yaatoo yaatu boo xam ne lu baree baree bari dana ci génn ñu fës ko yéene seq ak boroom xam-xam danañ ñëw ci moom du léegi waxtaan wi incha allah dana ko tëral tëral ci ñetti tomb tomb bu njëkk bi dañ ci tënk ci gàttal kan mooy soxna jaara kan mooy soxna jaara li ko tàmbalee ci njal beenam ba ni ñëwee ke sëñ moral tësali doxin wa aw njàngi nam jàngeek nañ ko yare incha allah dana ñëw ci tomb bu njëkk bi tomb ñaareel bi mooy ak dundam barkeel gi mu barkeel ak fees gi mu fees dell ak i bind ak i jàngale yooyu jikko ci wàllu doxin ci biir këram ak i jëflante ñam doon jëflanteel incha dañ leeral lool ci tomb ñaareel bi tomb ñetteel bi nag mooy jamono ji nu toll suñ jigéeni jamono ana nan lañu war a mën a roye soxna jaar ñett tomb yi incha allah ci lañ fas yéene tëral waxtaan yi ki ñu koy defal it de borom xam-xam bu mag muy soxna Mbacke Sylla mii ci sunu càmmoñ soxna Mbacke Sylla ngir la ci moom tuuti ñuy gane àdduna 1975 ci Dakar fa la tàmbalee njàngum alquraanam ba ci fukkeelu atam ak ñett ci la wàcc alquran en même temps itam mu amaale ca euh, lijaasa bi ñuy tuddee shahada saniwiye mooy bexem ndax ñuy jàngal xam da doon jàngale da doon jàngale euh, école bi muy waxtu alquran nag ci la amaale itam bexem waaye ci xiiram ci xam-xam mu wéyal am njàngam di gës ci wàllu xam-xam ci lycée bi ñuy wax Kennedy bi ci Dakar man doon jànge foofa la amee baccalauréat ñu ko amee nag la dem ci eh, université bu Ndar wéyee fa am njàngam def fa ñaanti at ci la am nag li ñuy wax maîtrise ci la tàmbalee nag am njàngaleem yëngatu ci wàllu njàngale mu ngi njëkk a ci lycée Ibou Diallo bi nekk seeju jàngale ne ci lycée Faidherbe bi nekk Ndar jàngale itam ci lycée Bambey jàngale ne ci lycée Mbacké fi mu toll nag mi ngi am njàngaleem ci benn école formation bu nekk Dakar ñuy formé ci fànn yu bare bare kon day mel ni yëngatoom yëpp yëngatu yu xam-xam la kooku nag incha moo ñu fas yéene defal waxtaan mi soxna Maguette Sylla kon ngir bañ a guddal soxna si muy bëgg a waxtaan nag euh, waris na ko déglu bu baax a baax ndax barkeel gu ak barkeel ak dund ak lu ñu ko doon jël ci bind doy sëkk la maam Samba Mariam waxoon ne asilatin adaban sharifatin nasaban karimatin xasaban tafdiluha xaala soxna su tedd soo si nga xam ne ku tedd cosaan la ku tedd aw askan la ku tedd ay mbaax la ba tax nag feeñal ngëneelam ci ne jot na sëkk kon gannaaw feeñal ngëneelam jot na rek moo tax jotaay yi ñu def rek ngir feeñal ngëneelam kon soxna Maga Sylla euh, tafaddalina mashkura auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala seydina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa xayr wasallama taslima yéen suñu mbokk taalibe yi euh, rawatina suñu kilifa yi fi nekk te euh, sëñ Mamor ñu ñëpp xamee ko ci sëñ Mamor xam sa diine ñu leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant sànq bi sëriñ Cheikh di wax naan kii mooy def conférence bi dama ko xaw a euh, jégalu ma ne ko bu ñu waxee conférence day xaw a niru ne jotaay ku am xam-xam bu sore la te fi ñu toll dañuy nekk ay gëstukat ñu nekkaale ay jigéen i tamit di doon ay jullit doon taalibe ñu gëstu ba xam ne lu ñuy jëggaani sunu borom may nañu ñu am exemple boo xam muy maam jaara ñu mën cee taataan mën di ci gëstu mën di ko roy ba nga xamante ni ñun dinañu xam bu boobaa léegi fan la ñuy teg suñu tànk pour war a mën a dem fan la ñuy teg suñu tànk itamit pour mën a dox ci euh, suñu doxalinu jamono fi mu nekk waaye bala ñuy soobu ci waxtaan wi dañuy jëkk a ziyaare Muntaqa Basiru mi nga xam ni moo fi jëwriñu maam jaara ñu jël suñu ziyaar teg ko ci sëñ Saaka mi nga xam ni mooy jëwriñam Euh, ñu ñaan yàlla itamit lii nga xamante ni moom lañu ñu sumb fas koo yéene def liggéeyu maam jaara mu doon njëriñ ñeel ñu ñun ñëpp ñu doxe fi ñun ñëpp képp kuy soxna nga xam ni li ñuy wax mooy jënn jigéen ji am màggal gi te màggal gi day doon loo xamante ni lu war la day doon lu jaar kii ñuy waxtaane nag ñun ñëpp ñu xam ko ci soxna jaara turam dëgg-dëgg du soxna jaara lu waay gàtt-gàtt xam-xam xam nga ni soxna mariyaamu luñ ko tuddee soxna mariyaamu nekk wéy juru jigéenu euh, yonent bi suñu yonent bi di seydina isa alayhi salaatu wasalaam soxna mariyaamu buso moomu nag moom wéy juram mu góor mu ngi tudd sëriñ muhammadu buso ñu bari gën koo xame ci turu ma buso awa mbaay ma bu sa Awa Mbaay ñëpp xam nañ ni càllalem mu nga jàll ba ci Seydina Ali may satu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa te ñun ñëpp xam nañ ni képp ku setoo ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, ñuy leer ni li ñuy woole wax ci askanu shérif ca nga bokk kon ñoom seen càlla la di waa mbusoobe dafa yegg ba ci seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaareel yi tamit askanu mbàkke mi mu bokk dañu yàgg jaxasoo ak askanu bu soobe sànq woykat yi àndoon ak sëñ maam Mor dellu si waatoon nañ ci wax na ñoom ca Gollare ca Fuuta ca la seeni deret jaxasoo ba léegi boo demee euh, Gédé danga fay fekk ñu sant Mbàkke ak ñu sant Buso ba léegi ñu yàgg di ànd seen biir ñooy dencante ñooy ànd ñoo bokkoo nga xam ni kon loolu lu yàgg a yàgg te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax daan na wax ni képp koo xamante ni ku gëm yàlla nga gëm ma man xamal ni yow nit ku tedd nga te loolu mooy ak chef Sëriñ Tuubaa itamit mii suñu yaakaar moom it mu dëggal waxtaan ak euh, sëñ Maxtaar Bintaloo sëñ Ahmadou Lamine Dagana Diop dellu si waat ko ci téereem bi di Irwaanu Nadim wax ko ne ko moo sëñ Maxtaar xanaa xamoon ne ñun ay shérif lañu sëñ Maxtaar ne moom ca la amee yaqin ne ñoom ay shérif lañu yu wóor ndax sëñ Tuubaa du koy waxantu waajuram wu jigéen moom ma nga tudd soxna Astawaalo Mbakke maam Astawaalo di doomu sëriñ Ahmadu soxna Buso sëriñ Ahmadou Subo sëriñ Ahmadou Soxna Bousso euh, sëriñ Mouhamed Mbacke mooy borom mooy waajuram sëriñ Mouhamed Mbacke ñun ñépp nu xam ku ci turu maam Maharam nag moom moo sañc dëkk bi ñuy wax mbakke Bawol ci atu junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk juróom-ñeent euh, téeméer ak ñaar booba sëriñ bii ñuy wax sëriñ Malamine Sarr moom lañu ñu boomoon ci at mi ñuy wax junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ak juróom mu daldi ñaan Damel Amari Ngoone Sobel mu may ko xur woowu mu sanc fa lii ñuy wax Mbàkke Bawol kii ñuy woowee tey ji Jaara gane àdduna ci diggante ñaari wéjur yu tedd yooyu ci at bi ñuy wax junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ci atum hijriya mu tombeek atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak euh, fanweer ak ñett ca mbusoo bi fii ci Jolof ndax ay mbokkam ñu yàgg jóge lañu Fuuta ñëwoon ba mu gi sanc ci Jolof ba sëriñ ehm, ma eh, Serigne Maboussa Awa Mbaye sanc fa tuddee dëkk ba Mbusoobe ñu mujj ñoom nekk foofu noonu ba maam Jaara gane fa àdduna mi ngi noppalu itamit fii ci bërëb bu tedd bii ñuy dajaloo tey jii nii mujj ñu tuddee ko Poroxaan ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ci hijriya mu tombeek atum junni ak juróom benn juróom ñett fukk juróom ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ci atum tubaab ci taarix itamit wax nañ ni soxna Asta Waalo colam dafa meloon ni góor yàlla ndax jàllaaba la daan sol yor daar ak alxuraan waxuma di jàngale alxuraan rek waaye da ci daan boole téere xam-xam yi fi nekkoon yépp te doomi soxna yi daan ko jàng ba wax nañ ne sax soxna Sawaalo moom moo yar ay njabootam jàngalal leen boppam alxuraan lu mel ne que sëriñ bu soobe maam jaara ak ak soxna jaara ak yeneen ñi mu bokkaloon soxna astawaalo wax nañ ni itamit ci maam astawaalo ku guddoon fan lool la ñu bare sax dañ daan dem ba daan wax ne maam astawaalo dund na lu mat téeméeri at ndax rek barkeel bi dundam barkeel na te bu ñu delluwaatee ci li ñu gëstu xam nañ ni dundam lu weesu tuuti rekk lay ëpp juróom-ñetti fukki at wax nañ ni itamit ba maam astawaalo ba mu amee fanweeri ak ca la tàmbali guddi gu ne muy taxawal guddi gi di la alxuraan di ko tas ci lu war a mat juróom-benn wala juróom-ñett ràkka ci guddi gu kon ku mel noonu foog naa ni ku ko am ci wéjuru jigéen di nga am yow déjà benn base bu wóor boo xamante ni fa ngay war a teg sa tànk pour yow it war a xam ne sa dund dunduk doomi soxna la mooy maanaam dunduk koo xam da nga war a dundal alxuraan war a jaam yàlla looloo tax ba maama sawaaloo ñu yar ko ci euh, kër googu nga xamante ni xamuñu lu dul jaamu yàlla xamuñu itamit lu dul euh, sàmboog seen diine xamuñu lu dul sàmboog seen ngor xamuñu lu dul itamit def lu baax ak def lu yomb te loolu la maam jaara sënkaniku ba nga xamante ni bi mu fukki at wax nañ ni wattu na alxuraan nga xamante ni wattu na ko li doomi soxna yi di wax xabtan wa tilaawatan mooy maanaam mën ko mokkal mën tamit bindaale te du ko xool maama Sowalo continuer noonu ci éducation wam ci yarinam ba nga xamante ni maama Sowalo bi muy am ñaar fukki at ak juróom-ñeent fekk na ko moom it lépp loo xamante ni nit kuñ doon tarbiya yaa ngi ci loolu maama Sowalo fexe itamit ba nga xamante ni maam jaara loolu lépp matal na ko ba nga xamante ni lii wane ni kii nit ku mat la matale na ko laata muy am ñaar fukki at ak juróom-ñeent looloo tax ba nga xamante ni maam maam jaara dundam gépp jaamu yàlla la jël ak woor ak saraxe ak joxe asaka ak liggéey liggéey bu lew mu jël loolu def ko muy yóbbalam ci dundam gépp maam jaara teel naa xam ni nangu dogalu sunu borom ak nangu digalee sunu borom di wattandu ki itamit ay tereem loolu mooy liy jëriñ nit mu tax ba nga xamante ni amut lenn lu mu daan def te daanu ci woon def pastéef daanu ci woon def fulla daanu ci woon def fayda ca la yàlla dogalee ba nga xamante ne maam jaara ci noonu la dundee noonu la yaroo noonu la màggee ba nga xamante ni ci fépp ñi ko xamoon ñëpp xamalewuñ ko lu dul woon ci teey ak mbaax ak muñ ak nangul gone yi ak déggal mag ñi ak topp ndigalu sunu borom ak ay ndigali waajuram ak itamit topp ndigalu maam Mor Anta Sali mi nga xam moom la ko yàlla di booleel ci gannaaw lii ñuy waxtaan nag fàttewoon naa ko tënk sànq ne ci Minanul Baaxil Xadim moo sëriñ Basiiru ci lañ ko sukkandikoo ak Irwanu Nadim moo sëñ Ahmadou Lamine Dagana Diop ak maam Samba mi maam Samba Mariama mi Cheikh Moussa waxoon ne moo jëkkoon nekk ki daan taalif ci maam jaara doon ko way ci ay wayu peese ak bindu Cheikh Moussa Ka ndax li tax Cheikh Moussa Ka gënati ñoo ñor itamit mooy ne bëri na lu mu wax ci maam jaara benn te da koo wax ci suñuy làkk nga xamante ni kenn ku nekk ci ñun mën naa dégg li muy wax maam jaara mu doon royuwaay nga xamante ni ku la koy euh, nasa ku la koy traduire du la ko firi ci yeneen làkk ñi doon nettali tamit ci dundu maam jaara am na ñu ci ne maamorante sali moom moo dégg ñuy tudd mbaaxu maam jaara ñu dem ñaan yu ko sëriñ ma ko fa awa am itamit ñu ne sëriñ tafsir sëriñ ma bu sa awa moo xam ne maam jaara mii kay xettali jamono ci moom la war a jóge ba mu jaral ko moom it muy dox di wër nit ku yiw ki war a mën a yor maam jaara nit ku baax ki war a mën a dëkk ak moom mu di ko wër ba gis la mu doon séentu lépp ci mbaax mu nekk ci sëriñ Xaadimu Maam Anta Sall waaye maam jaara ba mu demee ci kër googu dafa fekk sëriñ euh, Abdoulaye Diakhoumpa wax na ko léegi soxna Anta mi bokk ak Euh, soxna sa waalo ci wàllu way juru muy benn laata moom it muy génn kër ga di dem di fekk ji euh, soxnaanta njaay waatoon na waat boobu ñëpp déggoon ne moom waatoon na ne bu doon moom moo demoon jamononte sayyidatuna aminatu kon kii ñuy wax tey euh, sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom yaakaar na ne bu dee liggéey doo nga koy maye kon ci moom lay gën waaye li ko jaaxal mooy li sunu boroom wax ba noppi ne yonent dootul ñëwati ci ginnaaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne loolu moo ko jaaxal waaye nag waat na ci yàlla ni ka doon ñooñu moom dana ko jur ba mu demee itamit ci kër euh, sëriñ Mor Anta Sali fekk fa wejuram wii di soxna Anta ñu waxtaan ñoom ci waxtaan biir kër soxna ne ko man de maam xaw ma soxna Mariama xaw ma loo fës yéene am ci biir kër gi waaye man de waat naa fi ba fës naa fi yéene am janta ak weer maam jaara ne ko man nag fës naa fi yéene am ma nit asamaan si nga xam moo leen di tiim ñoom ñëpp te ñun xam nañ ne alxuraan day wax ne liggéey boo mënti ci sumb yéene daf ci am solo innamal a'maalu bi niyaat na ko doomi soxna yi di waxee wolofalkat yi itamit di wax ne liggéeyu maam Mor maam maam Jaara mooy maam Mor Jaara waaye yéene jaadi maam ñu ne yéene moo ëpp fayu jëf moo waral mu am moom li ca teguwaat itamit ñu ne maam Jaara bi mu demee kër Serigne Mor Anta Sali ñeenti bant la ko fa sunu borom ñaar ñi mooy ñi ñu gën a xam muy maam Mor Jaara magi mag di borom saam ak Serigne tubaab mi nga xam moom la ñu yàlla yónni mu war ñoo xettali fii ak ëllëg waaye amaale na fa itamit Serigne Abibulahi ak Soxna ak Mbakke ñoom dañoo làq bi ñuy nekk ko ñi gën a ëpp ci ñi nga xamante ni ñoo jamonoonteeg Maam Mor Maam Jaara nettali nañu ay sa yu bare bare bare ci Maam Jaara bu ñuy toog di leen lim amaana duñ fi mu sa jóge waaye liñ ci mën a jukki am na ci benn walla ñaar yoo xamante ni danañu doy ñun ñëpp ñu war a xam ni kan mooy maam moom maam Jaara maam Sàmba Mariama moo jëkk ne soxna jaara bu mësaan nekk ci biir waañ wi képp ku mësaan a xiif ca maam jaara nga daan demee moo doon reggukaayu képp ku nekk loolu liñ ci war a jàngate mooy jigéen dafa war a nangoo yaatu nangoo reggal nit nangoo joxe ñam nangoo tabe itam ba Cheikh Moussa Ka doon delluwaat di wax ne maam Sàmba Mariyaama ma daan raw cim lëf xamdan li man jaala moo ko taalif noonu na bagaan woon fa soxna jaara mooy reerukaayu bépp doomu daara kon loolu day dellu soit ci liggéey bi jëkk di liggéeyu maam jaara mooy ne nekk ndey waxuma ndey ci ñamu jur rek waaye dafa yilif ba yilifaale ñamu jur ak ñi mu jurul woon ñu demaat itamit ñu di ñu wax ne maam jaara dem na ba di tayle ay takkaayam pour mën a matale njëlam mi ci biir kër xisa bi ñuy nettali ne soxna jaara toog na biir kër sëriñ Mor Anta ngir wéyal ndigal ba mu tax ko mu toog taxaw xeru sàkket wi ko sëriñ moor joxoon ndigal pour mu di ko taxaw taw bi nekk di wis ci kawam suba ba jant soo soxna jaara toog di ko xew ndax jotaatul ndigal lu koy tax wax ne ko na ko bàyyi dégg nañu itamit ñuy nettali ne soxna jaara ku teeloon xam teeloon eh, njort mbóoti sëriñ Tuubaa ca la bokkaale ndax lépp lu ko mësaan a dikke nettali nañu léegi nii sëñ Abdoulaye Jaxumpa mi sëñ bi daan bajantoo ci zaahir ci ginnaaw su mësaan di aw fu ñuy def yëfi zahir ak li daan dikkal maam jaara guddi gu ne nga xamante ni moo daan këf kii nga xamante ni moo la yoroon te du xam lu mu doon bokk na ci itamit ay wax yoo xamante ni yu ñu daan nettali ne sëriñ bi moo ko ko waxal moom ci làmmiñu boppam maam jaara dégg ko waaye teewut loolu lépp maam jaara daf ko jël daal di ko téye daal di nëbb xóot yooyu yëpp daal di ko muñ di ko ko nëbbal ba nijaayam tafsir Mbàkke Ndumbe moom it nekkoon ci am miñalul sa waalo nekkoon ku sunu boroom itamit mayoon daraja moo topp bés bu set di ko laaj lu gan gi wax lu gan gi wax lu gan gi wax ak lu gan gi indi mu jigi ci la maam jaara di tàmbali di ko nettali naan ko ah moom de wax na nii wax na naa ca la xam kii mën naa dénkanteeg moom waykat yi di wax ne soo defoon su këpp cuune doon wan kii ñu wóolu doj la doj xajul ci nen soxna jaara lañu ñu wóolu mu tabaat ne ko boo doon keneen di wax ba mu dem daal di wàññi sax baax mu ne ko di woolu ay jibar akanaan jooja doom damaa waar te naa ko doom demal bañu fi soxna jaara yaa doy waar itamit ci minanul baaxil xadim sëriñ Basiiru nettali na ne ñoom maam jaara moo leen doon dëgtal ci seeni nopp di leen wax ne leen nit ñu baax ñi de dañ daan taxawal guddi booba sëñ bi ci zaayir lu tuuti la woon matagul woon sax dal xamut lan mooy taxawal guddi waaye da daan taxaw rek di xool asamaan si ngir rek topp li ko maam jaara daan dégg ak ngir bëgg ànd ak bëgg déglu ak bëgg jëfe-jëfe ngir bu baax comme loolu yépp day waral ne maam jaara mii tur wii ko sëriñ Mor Anta tuddee te bi mu ko koy tuddee boobu mu ngi fekkoon maam jaar a nekkoon fii ci àdduna ci zaayir mu tuddee ko ko ci kanamu ak ay mbokkam yoo xamante ne ay doomi soxna lañu muy seede bu rafet defut leneen lu dul wane ni maam Jaara mii nii moom amut leneen wërut leneen lu dul itamit ak mbaax wutul leneen itamit xeñtuwut leneen itamit lu dul fexe ba taxaw taxawaay boo xamante ne mooy taxawaayu diine di taxawaayu julli te lii sëñ Abdoulaye bi joxum ko doon wax léegi parité moom dafa demoon ba daanaka dafa weesu woon loolu sax ndax doonoon na jëf jëfin woo xamante ni ca nit ñu baax ñu sell ca lañu ko daan séntu woon na ci biir góor yàlla yi ñu ko daan def waxuma laat ay jigéen looloo tax tur wii do di turu maam jaara kon li ñuy jàpp day mel ne kon certificat pour képp koo xamante ni yow jàng nga ba mokkal képp koo xamante ni li ngay def yaa ngi koy def ba ñu war laa taril turug maam jaara gi day mel ne ab tampon wala diplôme boo xamante ni ci dundam lañ ko ko jëkk takkal laata muy àgg ci fenn leneen li ñu war a dellu siwaat di ci wax fi mu nekk nii mooy ci ay euh, jikkoy maam jaara yonent bi ba ñu koy laaj sayyidatuna Aïcha di ko laaj kan mooy yonent bi dani jikkoom yi ma mën a tënk ci lenn donc laa koy tënkee mooy jikkoom du lenn lu dul alxuraan kon li ñu mën a wax itamit ci maam jaara mooy ne jikkoom weesuwut alxuraan lépp loo xamante ne alxuraan da ko daan ŋañ maam jaara sore na ko daw na ko lépp lu alxuraan doon tagg maam jaara fexe na teg ci tànkam fexe na di ci dox fexe na itamit nekk ci loolu looloo waral nii ñuy tënkee jikkoom yi yaakaar naa ne woykat yi ñoom duñu ñu ko bañal mooy dellusiwaat ci ay way yu Cheikh Moussa àndoon ak soxna Aminata euh, Mbacke ñëpp xamee ko ci turu soxna Ami Cheikh muy way yu mu wayoon Maam Jaara di ci tënk di koy euh, soxna Jaara waxoon nañ ko ne ko yaa doon saw turandoo yaa ko fi roy yaa boole zahir wa baatin jaaratullaahi yaa rafetib juddu yaa dis gor te yaa ami may barkeel nga selli cosaan maam jaaratullaahi loolu dañ ciy taxaw ci lu tuuti bëre waane léegi kenn ku nekk ku ñuy ku nekk ci bërëb yow sa juddu moom ngay jëm fexe ko def ko muy certificat walla nga fexe def ko muy tampon ba lu ñu wax danga naan kii xanaa xamul man maay kan maam jaara nag ku rafetoon juddu la amoon ngor ami may waaye daanu ko woon tiitoo mu ne ko yaatabe yaataaru yaatabe am tiitar te deesu la xas doo tooñ te deesu la tooñ jaambur nga billaahi yaa dëddu dunyaa ji daawoo xëy di waaj abadan doo wut alal yaa sawar bay rooti bi dangaa lewet yaatu am ngor am teraanga ju mat xam yàlla xam yilla jaajëf jaaratullaahi muñkat nga muñkat nga doomer sawar téléphone njaxlaf nga maanu nga yaa mat jaaratullaahi yaa sàmm yaa sàmm yaa jaamu yàlla ak ci li wër ba yàlla seet ko réew mi jaaratullaahi defe naa ne ku ñëw tey ci bisub maam jaara ji di xam ne sunu boroom li muy wax ne yàlla seereel na ko ko seeral na ko réew mi yëpp yi tamit dëkk yaa rafet rafet jikko di togg lu doy doo sàkk xëjati seen jaaratullaahi day boole topp ndigal ak topp sëriñam ak topp yàlla bu wér maam jaaratullaahi yaa boole fulla ju ànd ak faayida ak la ca war ak xel mu sotti mu sell jaaratullaahi yaa jëf lu kenn jëful yaa am lu kenn amul yaa mën lu kenn mënul maam jaaratullaahi jaaraama maam jaara ñaawoo njort daawu jëw doo jànni daawoo rambaaj jaaratullaahi siisoo añaanoo te daawoo bodde doo gëdde fan teggin du yaanu ko war jaaratullaahi ak mokk ak nooy di wax dëgg far yaanu ko wan daawoo werante yu xuloo maam jaaratullaahi femmal nga ñal di ñawoon boobee ci yépp anam say nopp gàcceel nga leen maam jaaratullaahi mu dellu siwaat ci xerawlu leen nu sant maam jaara mu ne ko jigéen ñi soxla lañu yaa doon soxna ndaanaan ndaanaan li ut nga làmbi doomi soxna yi mu neeti maam jaara ne ko moo tax sa doom di xaadam seeni doom di xaadam di gont ka xëy yow sa doom di yaar defe naa ne tey képp ku jóg li ngay xéntoo ci sa dund mooy fexe ba liggéeyu Sëñ Tuubaa te tey jii itamit ku ñëw tey jii ci bërëbu poroxaan jii nii ñun ñëpp yëg nañ yoon wi metti na démb ñi ñëw euh, awee yoonu Dakar diggante Fatick ba Kaolack yoon wi metti na ku awee itamit yoonu euh, Saalum bi diggante Dingiraay ba Nioro yoon wi metti na waaye kenn koo wax ku nekk xelam xëntoowut lu dul ñëw fekk si tey jii maam jaara fii mu tëdd fii ci tëraay bu jëkk bi ñaar itamit seetlu nañ ne maam jaara am na jumaay boppam ju mu bokkul kenn te defe naa ne ci taarix amul fenn fu ñu mës a dégg jumaa joo xamante ni dañ ko askanale dara jaale ko jigéen amul itamit dëkk boo xamante ne ci àdduna wala bokk man xamuma ko dëkk boo xamante ne dañ ko jël dara jaale ko jigéen askanale ko ku mel ni Maam Jaara tey jii nii boo wëree ci dëkk bi sant wu ne di ko dégg ci Maam Jaara dem nañu ba tubaab yi di nasaraan yi sax ñoom ci seen bopp léegi ñu ngi tuub kenn ku nekk ku ñu ne nu tudd rek mu ne Maam Jaara laa tudd kon loolu yépp firnde la di tegtal ne jikkooy maam jaara rafet na rafetaay joo xamante ni kenn ku nekk fës nga yéene yow am ci juróom-ñaari jikko yi nga xamante ni moom la am ñuy dellu siwaat itamit di fàttaliwaale ne lii gën a yokk tax tey jii liggéeyu maam jaara ji mu gën a siiw gën a yaatu cheikh mouhamadul moustapha ibnu sëriñ basiru aw na ci tànku ay waajuram moom itamit aw wane lañu liggéey bi ba tey ñun ñu xam ne liggéey bi fii la toll kon lii yëpp ñun bu ñu xamee gisee maam jaaram yi mu am tey jii nii ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy tudd woone ay soxna lañu ay jullit lañu ay murit lañu ana ban taxawaay lañu war a am ñun tey ci suñu dund ban taxawaay lañu war a taxaw ñun fi mu nekk nii lan lañu war a taxaw lan lañ mooy war a nekk suñu taxawaay tey jii nii ba nga xam danañu leer ne ñun ñu ngi ci tànk ak wala roy ki ñu war a roy tey jii te defe naa ne wolof day wax bay ci say weewi tànk bala ngaa jëggaani kenn dafa fekk yow sa kër dañu tànn te lii itamit maam jaara ñun ñëpp mu leer ne moom la dund te loolu la jëf ba tax tey jii ñuy añ lii ñuy añ nii weesuut ci fanweeri at ñett la ko maam jaara liggéeyi fii ku xool nag tey jii nii yoon wi metti na waaye boo xalaatee ne téeméeri at ci gannaaw bi maam jaara di nekk fii foog naa sëñ Abdoulaye léegi bi ñuy wax 1941 la ñuy wax jamono bi fi sëñ Basiiru yi nekk waaye man démb damay xalaat bi maam jaara di fi nekk muy 100 ans en kon dëkk bi nan la waroon bi kon li wóor mooy ne àll bu lëndëm këriis la woon àll bu raglu la woon ànd àll la boo xamante ne neexul woon a nekk itamit ndax yu wër dëkk bi lu ci ëpp sax ay xur la ba léegi nii kon ndegam dëkk bi tey jii nii nga xamante ni àdduna dox na ba àgg fii mu àgg ci la dëkk bi ba léegi mënagul a mel ni ko sëñ Basiiru naalee wala ni sëñ Basiiru euh, fase yéene mu mel ko ni kon nañu xalaat téeméeri at ci gannaaw naka la dëkk bi mel kon roy ki nga war a roy day doon warteef war lu jaadu ci ñun ñii nii bare waa ne koy dégg muy woolu boppam ñu daan wala bokk ñu tuddee ko soxna si mu am jikko joo xamante ni danga ko xeeb kon kooku est-ce que dana fekk ne dégg na bon nan la war a jàngatee maam jaara ak li wolof di wax ku ñu tuddee nit nga jël ay juróom-ñaari jikkoom est-ce que kooku jël na ay juróom-ñaari jikkoom itamit gëm nit en général dañuy faral di wax ne nit boo ko bëggee da nga koy niru ba niru nirulu ko ci na muy solee na muy doxee na muy waxee ak na muy jëfee kon ñun bu ñu nee gëm nañu maam jaara bëgg nañu maam jaara woolu nañu maam jaara te yaakaar nañu ko ndax ñun ñëpp ku am jig ku am soxla ku am yitte maam jaara ngay woo kon bu ñu ko gëmee woolu ko doylu ko itamit war nañuy nuru nirulu maam jaara war nañ koy roy roylu war nañuy aw ay tànkam war nañuy xool la Cheikh Moussa Ka waxoon di xeeñtu ay mbooram mës na am ku ñëw ci sëriñ Saaliw di ko wax naan ko sëñ Tuubaa kenn la kenn mënul def ni moom sëñ Saaliw daal di ne ko wax ne sëñ Tuubaa de amul moroom wax ju yàqu la ndax boo jéemee roy sëñ Tuubaa bu yàggee nga raw say maas kon defe naa ni ñu ni tamit suñu tegee suñu tànk fa maam jaara tegoon tànkam am naa yaakaar ne danañu mën a raw suñuy maas ci lu bëree bëri bëri te man li ma yaakaar muy ma am ci yaqin ci li jiitu mooy ne la ca jiitu mooy fexe ba ñun jigéen ñi ñu xamaat suñuy diine te xam suñu diine mënuñoo fexe ba xam ko dëgg-dëgg xam lu dul dañu jàngal tubaab yi nga xamante ne léegi ñun ñoom la ñuy roy même ñoom dem nañu ba d'accord ne yar jigéen mooy yar société kon nag bu ñu demee ba nga xamante ni ñun ñii di ay jullit te yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon ko bu yàgg a yàgg a waxoon ne yar jigéen mooy yarub société ndax jigéen boo ko yaree defar nga société boo ko yarul yàq nga societé yar góor nag mooy yar benn nit kese bu ñu demee ba ñoom ci seen bopp tubaab yi ñu dem ba fekk si loolu yonent bi kon ñun ñii di jullit rawatina ñuy taalibe ñun war nañoo delloo war suñu bopp bu baax xamaan ñun ñooy la ca jiitu mooy ñu fexe ba xam ñun lan mooy suñu rôle ak lan mooy suñu warteef ci diine te loolu balaa nit di ko xam lay jiitu mooy mu jàng xam moom mooy kan xam lan mooy warteefam ci diine yonent bi sallallahu alayhi wa dafa delluwaat waxaat ne sàkku xam-xam warteef la ci jullit bu góor ak jullit bu jigéen kon lépp luy waral wane ne sàkku xam-xam farata la ci diine ñun ñëpp xam nañ ni suñu borom wax na ko ba noppi Serigne Touba da daan jël ay doomam yu jigéen ñu mel ne seeni càmmi ñoom ñëpp lépp lu ñuy def loo ko ci li ñu mën a ne daf ko daan def loo ñu jàng alxuraan jàng xam-xam mu bind loo leen kaamil te du yàq ci seen mbiri jigéen dara kon defe naa ne bu ñu amee fu ñu war a teg suñu tànk loolu ñu sëñ bi wan day doon sëkk sëkk mu doon exemple te lii tax sax yow lii suñu rôle ci biir société bi pour ñu gën koo xam bu baax foog naa ni njàng mi ca lay bokkaale loolu kon dana delloo siwaat ci yaraat jigéen ñi daara yi mel ni sëñ Moustapha yi mu fi taxawaloon la sëñ Abdoulaye Diakhoumpa doon wax léegi bu ñu ko mënee tasaare ci àdduna bi tasaare ko d'abord ci biir sos biir euh, Sénégal fexe ba nga xamante ni képp ak roq ak fu nit mën a nekk mu am fa donte benn bu sauvé xëy na bu yàggee mu am ñu bare ñoo xamante ni dinañ mën leneen itamit mooy fexe ba ñàkk jot bëre ne lu yàq ci société bi fi mu nekk nii jot gu bëre moo koy waral kii jëw dafa fekk mu toog am jotu jëw am jotu mën a wax ci waxu keneen am jotu mën a di lijjante ak lu lux mbóot ak di xool la keneen la muy dundee léegi li jigéen ñi mën a def ci société bi lu bëri la wax nañ fi ay exemple ay GIE yu soxnay sëñ Bas yoroon léegi ñi soo demee Touba ñoom sono maam Fati Dende yi am nañu ay GIE sono maam bi bu sa wilaaya foog naa ne programme développement pauvreté bi moom lañ ko dénk biir Touba ak ñeneen ak ñeneen ñii ñi ngi ci jàngale alxuraan bi ñii ñi ngi ci jàngale leneen ñee ña ngay faj ñee ña nga ca sopp ñee di wal ñee di lijjanti ba nga xamante ni kenn ku nekk ci ñoo ñooñu fexe nga ba sàkkaloo sa bopp jamono joo xamante ne di nga am jotu di toog di war a wax ci waxu kenn soo nekkul ca la la war yaa ngay jàngale alxuraan wala yaa ngi koy jàng wala yaa ngi fexe ba di wut loo xamante ni dana dimbale nit ñi ci seen wàllu àdduna ndax àdduna léegi bokk na itamit ci li koy tax mu gën a ñoŋ mooy nit ki nga mën a yor ak poñam leneen li ñu ci mën a waxaat itamit mooy nekk buum bi nga xamante ni mooy ñaw société yàlla day rëbb ci alxuraan ki nga xamante ni mooy dog mbokk te léegi seetlu nañ ne mbokk yi ñu ci bëri ñu ngi tasaaru jigéen ñi ñoo war a doxaat seeni tànk mel ne maam jaar di rafetal mbokk gi di rafetal ànd gi di fexe ba nga xamante ni lépp loo xamante ni luy ñaawal société bi luy tilimal société bi ñu fexe ba gàkk-gàkk yooyu yëpp ci ni ñu ko gisee ñu mën a fexe ba loolu yëpp mu wàññeeku. loolu itamit du yem ci ñun suñuy jëm waaye dañuy fexe ba nga xamante ni suñu doom yu jigéen yi ñuy jur ci doom yu jigéen ñooñu nga xamante ni ëllëg ñoom ñoo war a tey jii di ñu saytu. war a awaat ñu ni tànk ya seen way jur yu jigéen di aw ñu fexe ba nga xamante ni euh, li wolof di wax mujjewoo buum bi foog naa mu réer xam nga mujjewoo puso euh, bi mu réer ñu fexe ba nga xamante ni itamit ni ko suñuy maam daan defee nga yar diw diw yar diw keneen yar diw croix bi bañ a euh, daggati buum bi bañ a dogati ñuy fexe ba loolu muy sàmm te loolu defe naa ne ñoom sonaawa ñoom ñi ngi ci taxaw ci loolu xam naa ñoom bu ñu ñëwee suba bu soobee yàlla danañ fexe ba waxtaanaat ci ñoom nan la ñu tëralee seen programme ak nan la ñuy fexe ba nga xamante ni ñoom maam jaara ñii ñu fi formé bu ñu génnee ñoom danañ fexe ba loolu du dagg dañuy continuer di ko saxal benn maam jaara formé fukki yeneen maam jaara ak yeneen juróom-ñaar fukki xujja ak yeneen ñeent fukki aminta bu boobaa nga xamante ni ñooñu kenn ku ci nekk di indi lenn la nga coy def ci liggéey bi nga xamante ni day doon bunt boo xamante ni doon buum boo xam ndeem soob na yàlla du ma sa dagg ba ilaa yow mii leneen li ñu ci war a mën a waxaat itamit mooy na ñu xam ne ci tënk léegi xaalis bëri na waaye ñàkk tey la gën a bëri léegi mbubu yomb na waaye tey la rafle gën a bëri léegi liy fexe ba jokk mbokk bëri na waaye tey la mbokk gën a dogoo lii fexe ba àdduna doon benn tey la gën a bëre waaye àdduna tey la gën a jaxasoo tey la àdduna gën a euh, war kii euh, gën a gën a gën a jaaxalaate gën a tiitalaate ñun ñi nga xamante ni dañuy jàngale dañuy nekk ci biir classe yi da ngay gis gone gu ndaw di doomu jullit am turu nit ku yiw am sant nit ñu baax day def loo xamante ni yow ci sa bopp dangay ngay tiitaat ci sa bopp kon mooy wane ne ndey yi ndax rôle ba ñu waroon a ñu ngi koy joué ba léegi ndax ñu ndey place ba ñu war a taxaw ci suñu biir kër yi ñu ngi koy taxaw ba léegi wolof day faral di wax ne ku euh, tay sa jëkk sa boroom kër foog naa ni ku ku ku togg sa boroom kër yàq sa njaboot am na daal nu ko mag ñi di taal di ko waxee yàq sa doom waaye nañu fexe ba xamaat ne la sëñ Abdoulaye doon wax ñaar bu ñu seqee mbir lenn lu ca dëng ñu askanale ko ci kenn kooku war naa góorgóorluwaat bu baax a baax xoolaat moom bu baax fa muy teg tànkam xoolaat bu baax ci lan lay war a toppandoo ak lan lay war a roy ak kan la war roy li ñuy tënk nag mooy dañuy delluwaat di ñaanaan maam jaara mi ndax yaakaar naa ni maam jaara képp ku bëgg a baax boo ko ko ñaanee boo ko fasee ci sa biir xol bii maam jaara mi mën na la koo may ñu di ko ñaan moom maam mi nga xam mooy sunu yaakaar tey ndax man damay faral di wax ni xëy na boroom kër yi la sëriñ Touba nekk seeni sëriñ waaye ñun maam jaara mooy suñu sëriñ mooy suñu roy waay ñu di ko ñaan moom maam mu sarax nu fan wu gudd wa ànd ak barke yokk ñu ngëm ci seexu naa may nu ak cër moom maam jaaratulaay yow maam jaara ñoo ngi dagaan sak cant ñoo ngi wayal ak cër ci yow nan ci bër yow jaaratulaay na gëm yu yokk te bu nu yàqoo te fii abadin na wërsëg yu yokk wërsëg yu yokk te bu ñu wàññeeku lillaahi na pasteef yu yokk ñu sax ci njub di jaamu yàlla bu wér tey sopp alxaaji fadlu lillaahi wasalaamu aleyna wa aleykum asalaam wa rahmatullahi taala ñu ngi leen di jéggalu yéen ñépp nag di massaw di ñaan yàlla itamit li ñu fi indi ñun ñépp maam jaara boole ñu ko nangul te sotti ko def ko muy xéewal ci Sénégal lépp loo xamante ne lu safaan la lu ñuy daw ci dëkk bi sunu boroom soppil ñu ko defaraatal ñu ko muy yiw defal ni ko muy baax te dàqal ñu lépp lu ñuy tiit dàqal ñu lépp lu ñuy ragal ci barke maam Jaara mi ñu fi fekk. mu mel ne loo yàgg dunde la loo yàgg bëgg la te say ko jëlee ci yow joxe ko. li ci am solo lépp te ñu mën ko dégg ci lu gàtt mën koo jëriñoo waxe ko ko mën ko war a waxe euh, kon li ci rek mooy ñu tuddee taaliq te mooy ñambaas xëy na sëriñ bi sax jox na moom bi euh, lu baax a demee noonu te soxna jaar ñu ko waxe góor war a ku jigéen war a roy waaye góor war a roy wax naa ko léegi bi ma lay bi may ubbil sëñ Mamor ci sëriñ euh, Mamor dem xasida gi defoon ci Soxna Jaara te tuddee ko noonu yetul moom te ci buntu barab bi la ko defee bokk na ca lam ko wax bal anti qudwatu kulli man salakal huda fa rijaaluhum wa nisaauhum siyaan mm. nee naa soxna Jaara li wér daal mooy képp ku soob soob soobu ci ab jub roytee fam la loola nag góor ak jigéen a ci yem mm. loolu la ko sëñ maam moo dem wax waaye laal nga ay nuqab ay point yu bari loo xam ne mënees na caay jàng lu nekk laal nga ci soxna Jaara li ko bokk jaral waaye ay bokkam it nag soxna màggat di bokk yu baax la mm. suñu borom mooy def lu ko soob mooy soxna jaara bokk yu baax la nekk ñu mu nekk loolu ay bokk yu ko jege woon la lu ma waxee léegi maam Mor Anta Sali maam Balla jur Ibrahima Awa Niang jur ko soxna Sawalo Ahmadou soxna Bousso moo ko jur soxna Anta Ndiaye Mbakke Ibrahima Awa Niang maam Maharam soxna Fati Sa Diop soxna Hafsatu Mbakke Ahmadu soxna Bousso maam Maharam soxna Jaara ay bokki boppam képp la nekkoon waaye bokk yooyu nag wax nga ne dañoo nangu dogalu yàlla ci soxna Jaara te loolu borom xam-xam yi wax nañ ci yajibu arrida bil qadaai la bil maqdi dañuy wax ne ab dogal su rotee jàmm bi da caa war a gërëm yàlla waaye la yàlla dogal su la neexul bu ca gërëm yàlla sew sew bu sew a ci nekk loolu mooy lu am yàlla waaye génn yor sa oto jëlale naa nit sax waxuma nit waaye xar wala fas romb nga laal ko mu daanu ak ruuxam rot togal baal waaye boobu dogal nag bu mën a neex sew sew ñii nag li leen dal mooy sëñ Touba mi soxna jaara indi te mu kawe ñépp day dogalu sàmboo waaye bokk yi gërëm dogal di seeni doom di baax baax ñu di joxoñ seeni doom sëñ Touba fexe leen ba bu mu leen rëcc fexe leen ba bu mu leen raw teraanga ji mu yor addina bépp xaj na ci doom yi wommatu daal di topp sëñ bi nañu ko war a toppee waaye gis nga it sëñ bi geesu leen def leen ne boppam defal leen da mu leen war a defal loolu tax na Masamba Marème Diop mii nga tudd di doom yi matul benn bu yoon nga xam ne maami Cheikh Mouhamadul Muqtada ibnu Xaadimu Rasul xasiida gi mu def ci soxna Jaara am na ci bay woo xam ne sëñ Tuubaa moo ko soppilu sëñ Amsatu Jaxate dafa wax ne xasiida gi dañ ko daan jàng ci kanamu sëñ Tuubaa ni ñuy daaje jës bul ko waaye am na bayit woow sëñ bee ko soppilu tëkkin bi sëñ bee ko soppilu ngir wane rek ne ñoom ñoo bokkoon lépp hmm. biñ bindee wa kam baraira àllaatin xamil na fala yadkur na min dikriha id xawsuha baana wa kam baraira te loolu di tekki bari na ay wujju sëñ bi daal ne déedéet dindi leen bariwaane ay wujju sëñ bi ne déedéet dindi leen baraira teg bind xaraira bariwaane ay goro loolu la sëñ Tuubaa daal di wax wa kam xaraira àllaatin soxna jaara jokk bokk wax nga ko léegi bokk ci kër di liggéeyal yàlla taxul ngeen war a doon ay jàmbur taxul ngeen war a noonoo tax Masamba Marème it ba tey loolu sax sëriñ Jaw ak Dagani moo ko wax soxna Jaara tuuti wa tut'imu miskinan wa saa'ilatan tuwassilu rahma ixfaan wa idhaar soxna Jaara da daan joxe ñam da daan lele kenn ku ne xam na ne musta denc dara lépp lu mas a tàbbi ci loxoy soxna Jaara nit a ko fa bàyyi moo xam alal la moo xam aw ñam la soxna jaara bari kersa loolu addina war nañ koo jàng ci moom wax nañ ne soxna jaara bu masaan a gis kuy def lu jaaduwul su la soxna jaara njëkkee gis doo ko gis bu la gisee ngay defu safaan waxal la ko boppam directement mubasharatan du ko man waaye day wut ko ko ko waxal mel na ne loolu Sayxul Xadiim bokk na ci yi mu jàngee ci soxna jaara sëñ Basiru nettali na ci Minanul Baaxil Xadiim ne sëñ bi kersaam àggoon na ci bu gisee kuy def lu jaaduwul moom sëñ Tuubaa bu la njëkkee gis doo ko gis waaye day bàyyi ba ca ëllëg sa wala ay fan mu dajale mbooloo war leen a digal war leen a tere day wax waxin woo xam ne yow ma defoon xam nga ne yaa ko tax di wax waaye du la tudd directement loolu kersa la te kersa ci imaan la bokk yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kersa ci imaan la bokk bokk na makaarimul axlaax yi nga xam ne sayyidatuna Aïcha nee na fukk la kersa ca la soxna jaara ko amoon falsafa la soxna jaara ku amoon falsafa la philosophie dafa daan wax ne euh, yéen góor ñi bu leen di xuloog jigéen ñi ndax nee na boo xuloog jigéen dana la dégtal lu jar nga dóor te su boobaa du gën nee na bu bu la dégtalee lu jar nga dóor ba nga dóor dana la dégtal lu jar nga rey te boo reyee da nga rëccu daana wax ne yéen jigéen ñi yéen itam na ngeen xam ne ñaari noof laay mënut am ci benn kër noof dugg ci kër gi sëyee ni la neexee am li nga bëgg ak sa say doom màgg mel nañu war a mel loolu mënut a nekk loolu soxna Jaara Buso radiyallaahu taala daana ko wax kon yooyu mooy li nga xam ne mooy damay ubbil rek sëñ Maam Moor ci taalixaat yi ndax lu taalixaat yu war a gudd la soxna màggat wax na ko léegi ci poroxaan gi nga xam ne fi la doon nekk di fi liggéey te cosaanoowu fi dëpp fi yàggu fi ndax 1864 65 66 mu nelaw ñu denc ko fi ah diggante boobu yàggut 1867 sëñ Morane Sali tuxoo fi dem pataar diggante bu gàtt la waaye suñu borom dafa wax ci alxuraan ne du ma sànq jëfe ku sellal nee nga booba nañ seet booba ak tey nan la poroxaan meroon ci metti ak ci lëndëm ak ci àll bu xat loolu sori ñoom ñun rek suñu génération wax naa ko léegi sëñ Cheikh mu ñoom ñi rek jamono ji ñu fi nekk booba àll bi dafa dafa lëndëm dëkk bi amul courant kër boo génn jëm ci geneen ay golo mën nañ laa topp te nañ xool soxna jaara ak boobu kon ñu xam ne dëkk bu metti la jigéen wax nga ko yàgg naa am jom sayyidatuna ummu amara al ansariya bi ñëw na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko li xew lan la dafa mel ne góor ñi dañoo jël yiwu àddina ak àllaaxira bàyyi jigéen ñi yàlla ñoom lay tudd soxna soosoo tax aaya ji wàcc innal muslimina wal muslimaat wal muminina wal muminaat moom soxna sooso ci wàllu diine rek waaye ba ci wàllu aada ak fit bu dul diine rek jigéen yàgg naa ko ma ba joxu ba bi nga xamee ne mi ngi jihaad ak buur siin ci som buur siin fa mag dajale séréer sépp kenn ku ne mu ne la noo may jàppalee ci jihaad ji ñii ne dañuy soppaliku ngelaw ñii ne dañuy def ab taw taw ci seen poudre yi mu taw mu tooy am na soxna suñuy wax soxna si ga yett yaam soxna soosu dafa wax ne maba daf ne bursin góor ñi ni ñuy demee ci xare ba man du ma deme noonu bursin na ko yow nooy def mu ne ko musóor gii ma këpp ci sama bopp fu ma ko yëngale ay fett danañ ci jóge dem ca toolub xare ba rey li ma soxla dégg si te kooku jigéen la woon kon jom góor yàkk na ko am waaye jigéen yàgg ko li may tëje mooy li nga wax léegi tamit lu am solo mooy xale yi war a génne ci daara ji sëriñ Fallum sëriñ Sohaybu dafa ñëw ci daara ji xool ko xool xale yi xool fi àddina toll bi mu génnee ci biti mu ne nu jiw wu amul mbellit ngeen am dal ne jiw wu amul mbellit nag ci suufus tos lañ koy ji suufus tos ngir mu saxal gàncax gu am njariñ loolu mooy sunu maam jaare yii nga xam ne dañoo ne ci daara ji jàng alxuraan ba am lu ñu def ci ñoom doonul góor gu ne lañ leen di jox sëñ Abdul Hakim radiyallahu taala anhu waxoon na ko ci soxna maam jaare Touba Diouf ne ma li tax ma ne teg dama ko bëgg góor gu baaxee na moom wala góor gu ko gën ndax am na jigéen ñooñ lii ne ci ñoom bu nekkee ci ñoom du góor gu lañ leen war a jox loolu nag lañ ci jublu mooy wax dëgg yàlla al ummu madrasatu ida ahdataha ahdatta shaaban a araqi yaay école la suñ ko formé nañ ko war a formé jaarale ko fañ ko war a jaarale boo léegi société bu mujj dafay baax soxna màgget ñu ngi sant ñu ngi gërëm dañ doon ubbil sëñ Maam ci taalixat yi mu war a def rek ngir xam ne conférence bi teewlu nañ ko am na ay points yu ñu jël yoo xam ne mën nañ ko jariñoo ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mel na li ci rot ci ay tomb bari na xëy na jàngat yépp du yam waaye dañ ciy jukki leen rek waaye li suñu borom newoon suuf su teey ci ñuy ji nji mu teey nji mu sell mu mën a jur gàncax gu rafet loolu mooy li daal sama jaar leeral yi tam ci askan ne sharifa la umman wa aba ndax bu dee ci nekk gi nekk sharifa ci wàllu wajuru jigéen càllam ñu ko topp ba ci soxna Fatima mi nga xam ne moo doom yonent bi sallallahu alayhi wa waaye ci wàllu baay yëpp am nga loo ci nettali su mil leen jub dagg na waxoon na ne bis dañuy waxtaan ba tudd genn giir bu ñu wax aalu moo di nal la ca gànnaar te xam nañ ñooñu ay shérif ay shérif lañu seen xanaa xamu ñooy ñooy ñooy suñu doomi baay ñoom ñu xamante kon ndeke ko suñ kon te ba la kon tegtal kon kon shérif la moom soxna jaaru umman waa baax ci wàllu ñaari ñaari wàllu yëpp nga wax ne cosaanam fii ci réew mi ñu ngi bàyyi ko gollare ca Fuuta nga xam ne maamam eh, Amari Jax nga xam ne maamam maami maami soxna jaar ci wàllum ndeyam moom lañ tuddee Amari Ngooni Ndeela bi nga xam ne moo dogaloon maam maaram suufas Mbàkke nga wax ko ci jamono joo xam ne ma Lamin Saar mi nga xam ne mook maam maaram ñoo bokkoon daara ca daare maam Sàmba Caam ca Caamen bañ fa jógee yàlla dogal damel boobu raylu ko bañ faat bakkanam xam loolu histoire bu gudd gudd la waaye sëriñ sëriñ dañoo woote woon xare ngir xareek damel bi ñu wooyee maam maaram mu ne leen man kat xare lay wallu waaye duma wallu ab xeex talul ab xeex la ndax xeexu diggante ay jullit du xare daal joxe ngànt waaye sëriñ sa bi ñu wootee dajak dambel dambel gañe leen rey ci ñu bari jàpp ci ñu bari ay jàmm maamaaram toog ba ci déwén sa bu door jaale ji euh, euh, malami sar moomu ànd ak jolof yépp wax nañ ne li ko toppoon ci doom ngay jàng rekk wax ne bi ñu tollee bi ñu tollee guy fukki séer seen pënd bi mu ko jolli ba ak si Mbàkke ngir mbooloom bari mu ànd bi mu agsee e, caay leen jama dëkk Malami Sarr yéen ca ndàmbeel nuyulu ko mën a faye naa ko waaye nee leen ko na fi ñëw ñu ne ko bàyyi dem dalay rey naam defan Malami lay def mooy leen gaynde du mos dinaa ko yi ànd ak ay doomam bi mu àggee ba jub dëkk ba dameel woo nekk ma nañ daje maag moom ca xurwa nañ daje ca xurwa maag moom kepp ñu ne ko ah, sotti na dalay day fas sa waaye maamaam dem daje moom mu ne ko man dama noruma ci yow lenn lu ñaaw ndax xanaa xamul amari amari ja samaam lañ ma tuddi bi nag ci diggam ak ma labi la mu su ma la teeloon a xam li am du ngir xelam mu rafet jàll ko su ma sañoon dëkk yooyu ci la ko dogale suufu Mbàkke kon loola leen indi Mbàkke mu taw sancal ko Ibrahima aw ñan ndax ba fekk na muy mag mën ne tuta doxu mu yàble ñu sancal ko kon li indi li indi askan woowu Mbàkke foofu la jaare te ñu ñu ko ci waxtaan wi eh, bi muy ñëwee itam si moo doon sëriñ ni nga ko waxee mu nekk koo xam ne waajuram wi ko meññi dafa nekkoon ku sell koo xam ne ba ñu am fanweeri at képp la tàmbalee naafile kaamilu alxuraan ci guddi gu nekk wala ko yor daara wax nañ da daan sol mbal fa teg ci ab jàlla bi jàngal alxuraan waaye di tëral itam tëral itam mboolem téere téere xam-xam yi moo jàngal soxna jaara moo ko yar lu ne ci moom moo ko ci def gannaaw nag comme mel noonu nga xam ne ca sell gaag xam-xam baag yar baag juddu ba rafet ba sëñ lay wax na ko léegi ku mel noonu du caage na ku njub maanaam mën naa ànd ku ne waaye ka muy àndal ku ñu tànn lay doon ñu tànn ku dëppoo ak moom si Mor Anta Sali mi nga xam ne wàllu yi la woon borom xam-xam la woon ku tedd di cosaan la nga xam ne genn bokk gi rek si leeral la ko léegi genn bokk gi ñu ñëpp ñoo bokk menn maam ni jaay la ci soxna jaara ci seenu bokk mu nekkoon ku sell borom xam-xam bu doon jëfee xam-xamam daan jàngale mboolem fànni xam-xam yëpp fu nekk ni daana fa bàyyi ko di jàng seen alxuraan ci moom na benn borom Euh, sëriñ Mamar Kam doomi sëñ Daawuda Kan ca Dingiraay wax ne dafa mos a ñëw Mbàkke bo Mbàkke Kajoor sa yàlla si sëñ Mor Sël xaritam la woon dañ njëkk a gis sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa mi ngi toll fukk ak juróom juróom-ñaar képp di yàgg am njàng noppeegut ci la koy xool ba yàgg mu sàdd ñaari bayit ne innal quruuna bila thunya azimmatuhum fi raxatayka fa yanqaadu ma anquuda hada li Ahmad Bamba kaana waaliduhu bahral ulumi namiral maa i mawruda xam ne mi mi wax ne yow mii ma gis day des na bu gàtt yow maanaam no si bindeef yi yépp ñu ngi ci sa bu gàtt ñun ñëpp dañ ci wom womatu dikkal la naan yow Cheikh Amadou Bamba mii lay wax yow mi nga xam ne sa waajur géeju xam-xam la ko fees del la comme ndox tan tey ndox mu neex moo xam ne ñëpp dañu ko rosi boobu xam-xam bu bari bi mu doon amoon ñëpp di ko sàkku si la ci doon junj Euh, bi ko fa yàlla indee it nga wax ne dafa waat waaye waatam loolu it tiñuwut ngi ñem la tiñuwut ndax ba mu ubbee alxuraan ker ba mu bëgg a dem kër ubbee alxuraan yam ci maakaana muhammad naba ahadi min rijaalikum walaakin rasulullah wa xaatiman nabiyyiina ci la yam ci soo sotu laxsab waaye boo xam mi wàccoon ci sayd ibnu xaarisata booba amoon na aada ju xew ci arab yi muy li ñu tuddee ak tabanni yi moo dañu xewlu adopté doom boobu yonent bi sallallahu mi ngi adopté Zayd te as ngóoram la woon rek ba daanañ koy Zayd nu Muhammad suñu borom bëgg a dindi aada jooju tax mu ne Muhammad du bàyyi kenn ci yéen waaye ndaw yàlla yónni te mooy ndaw kiy mujj ñëw ci ndaw yi xaatimu nabiyin mooy kiy mujj ñëw ci yonent te na ko dindee bokk na ci dafa ko denc loo dafa wax ne Muhammad Zayd na nga ko dencal Zeynab Zeynab bintu Jaxsin Zeynab arab la woon waaye Zayd nekkutoon arab te xam nga arab dañoo yàgg ras daawuñ bëgg a sëy ku dul seen xeet ndax bi ñu ko ko bëggee dencal Zeynab joxe ngànt alxaan wàcc ne benn jullit bu góor mbaa bu jigéen amul sañ-sañu yàlla ko yëndam dogal mbir ñu ngi am ñu ngi ci amati ak tànk gannaaw aaya wàcc na ngir moom nag amul sañ sañ gàtt bu daal di nangu waaye nag ko ne xam ne gannaaw bëggutoon rek faaw dox wala la fenc ba tax seen déggoo mun taam ba ko bàyyi ko bàyyi na mu ne Muhammad jël ko bay ca eh, nga loolu bu fekkonte ne bu doon jamono ji rek ku denc sa doom soxna mu wàcc ko nga jël cool de jàpp kaw jàpp suuf nga xam ne jotaay boo loolu la ñuy waxtaane do soxna si doon jële jël ba in saa sa mujj am kes ak génn ngir li li ñu koy jëwee suñu borom acca aaya ne ko xanaa du da ragal nit ñi te yàlla gën a ci ragal ne ko ba ci sëy di jeexalee aajo man maa la ko dencal sa wëj naa ka maa la ko dencal ngir ñeneen ñeneen ñi am doom yu mel noonu su seen bu ñu bàyyee te soxna ñu maanaam duñu am nga duñu am gàllankoor mën leen a jël loola wala wàccu aaya ji soo jaan wax ne wax ne day waxaati man nabi yéene ji rek moom ci jaaxal daal wax li soxna si wax léegi ne su fekkoon de soxna ay mi na maag moom dañoo daje jamono maag moom ñu wujje rasulullahi maa ko jur kon ba mu jur rasulullahi it yàlla defal na ko mu jur xaadima rasulullahi mi ko doon ci zahir doon ko ci baatin kon day mel lam lam façon waat ko ndar ba dañu ci ndax waatu ko bàyyi waaye daf koo doxe waxe ko dund ko bi mu nekkee ci biir këram it njëkk gu nekk mu nekk ko fa mooy fexe na ba wetu jaamu yàlla matal na ko sëkk waxuma la farata waxuma la sunna waaye yi ñu sopp yépp képp daw ci bàyyi dara yàqalu ko dara ci biir liggéeyu këram liggéey yu metti jigéen daa def yépp da ko daa def di fóot di soq di wal njël di rooti di taxani di togg def liggéey yu metti yépp nga xam ne liggéey bi yàqu jaamu yàlla gi jaamu yàlla gi itam da yàqu dara ci liggéey bi sëñ Moussa Ka wax ne ci ci moom bari nga ay ay delluwaay ci woon sax sa ci ay wayam ci nga ko bind sëñ soxna jaar ni mu tërli ak dundam mooy fajar bu nekk mën a ko fonkoon jaamu yàlla ci la daan jàng alquran ñaare leen ci borom xam wax nañ ko wax nañ waxtu jël ci la daan jàng alquran su waxtu jotee mu jàpp yeesal am jàppam julli suba su defee dem nuy ji sëñ Mor Anta Sali yeesal pas-pasam ci moom yeesal jébbalam ci moom yeesal ak tuubam ci moom su noppee wër kër gi bukk ba mu set ay mbokki daanam ku nekk mu dem ba ci yow nuyu la jox la sa wàcc waaye rawatina Soxna Anta Njaay Mbàkke xam ne moom lañu ko féetale woon dañ bokk lépp muy ndey ci moom itam su noppee nag am na laax bu mu saxaloon toggal sëñ moor boo moo ko daa financé boppam wax ne mbindee ba amatu soow li mu jëndi soow mu ci daan def sax ay takkaayam la tay la ci pël ñu xayma ko ci bis yu ko ko jox soow waa kay nee na meeru Ndofane bi bi ñu wax sàmbaka nee na soxna si soxna julli penda la tuddoon kon wér na moom la tay la ay takkaayam xayma ko ci ay bis yu mu koy jox soow ngir taax laax boobu muy toggal si murani sëli ci lay togg laax bi fu mu mën nekk mu fekk fi yut ko ko su noppee rooteel dongo yi ca tool ya moom la sëñ Moussa Kanaan mbas la julli te jàppul mbas la julli te wirdul door a xëy sangam sangam tuubal dal di wër këram buubal nuy ji ay dëkkandooxam nuy ji njëkk jigéenam soxna Anta Jaay mbokkam Talla Anta moom maram togg di yekk yi jébbal Talla dem rootal donge yi xëy toolam soxna jaramu sellal kon noonu la ab ak ak ak ab dundinam tëdde woon rafetal itam aw nekk yi nu aki bakki daram moo tax wakam xaraajira jooju nga waxoon Sëñ Tuubaa nagu nagu daraajira ay wujj waaye ay gor la leen tuddee nga xam ne nañ doon jëflante ñoom léeg-léeg daana rab bu ëpp siir bu rafet dem seet ku ko yeyoo jox la ko ne la son ànd njaay mbàkkee la ko jox wala mu ne soxna Faati Isaa la ko jox tudd keneen te kooku du ko yëg sax ndax day def lu rafet bu rafet askan la ko keneen nga xam ne kooku day daje moom muy sant ka gërëm te xam lu koy sant lu mu kon la tegtal la ci rafetal gu mu rafetal woon aw aw nekkinam te lépp soxna soxna si ñëw ko ci biir waxtaan wi newoon na ab jullikat la woon ab woorkat la woon ab sarfekat la woon eh, sàmm sàmm Mariama wax na ko ci ci way bëjee in zaaraha jaa'i'un aw zaaraha dhami'un soona bi maa indaha shab'ana rayana ku ko mas a seet si te ab xiif walaw tax laa jóg ba nga ñëwee lekk nga ba suur naan nga ba màndi yaa taaliban naa ilan fas al bi jaaritina wamrul biha talqa ihsana fa ihsana neen yow am jaaxle daal mbaa nga am looy sàkku laajte soxna jaar rek jaar fa boo fa demee loo bëggoon rek ci rafet ko jëflante yow kon ku daal dimbalee la ku rafetalu itam nekkinam la ak ñam ko seqaloon Euh, wax nga ne itam dañuy wax ne sudurul fu fuburul asrar dënni gor yi ñooy bàmmeeli secret yi soxna jaara bu doon kuy feeñal secret Sëñ Tuubaa mën naa ñëw ba dem te duñ ko jariñoo ndax lam doon feeñal bu ko feeñaloon rek mën naa tax mu dem na ko mu Musaa Ka junjee da nga indi bayitee sànq waaye nag nga xam ne lim gis ci kiimaan yu xóot yu doy ci bi Sëñ Tuubaa nekkatu tànk mu nëbb loola ba feeñut loolu ko ne xam na ne kon dënnam bàmmeelu secret la ku mën a denc la euh, nekkoon ko rafet jikko koo xam ne na ko sëñ Massamba Mariam wax ba tey walam tuhin ahadan walam tushin amadan walam abadan man aabaha maana musta ñaawal kenn musta doyadal kenn musta ñaawal itam mukk musta yabal yabu musta yam ndabal fay ni ñu koy waxee neen kon ku ko sikkal ci an ak anam boo ko mën a sikkale waxuloo am kon amul lenn lu ko waay mën a sikkale amul lenn luñ ko mën a lu dul rafet ku ko mës dikkal ngir aaju aaju jafe jona man xaawaloo xaajatin fi milkiha wajadu nuj xal xawaaji laa yal xaw na xirmaana kenn mësu koo dikkal ngir am soxla mu xaj la ba nga dikkal sa soxla faju na kon nag mu jeexale ci nan lañ ko war a roy jamono ji ñu toll ñu xam ne fi ne jamono bari na lool ay yàqu-yàqu surtout ci jigéen ñi wax nga ne tey la yére gën a yomb tey lañ gën a rafale lañuy lañuy wax woon du tarafale mooy koo ci dem armaalam dana fees dell ki waaye leen lu ci suturaal yaramam do du ca am lépp ay daggit doon loolu mooy wardu tarafle jokk bokk ak rafetal sa digg say bokk tey la gën a yomb tey la gën a jafe ndax ñoom seen jamono téléphone amutoon oto amutoon leen luy jokk nit ak nit amutoon ku ma sànni di jóg ngi lu ñu ma sànni di yëg la aw fas la ñuy war dox diggante dëkk-dëkk wala a tànk te ànd ak lépp daawuñu umpante lu ñu sore sore lépp daawuñu umpante bukk lañ daa séq di tey jii ba loolu lépp yomb nga communication gën naa yaatu lépp gën a yomb tey jii la jokk boo ko gën a jafe kon loolu bokk ci bind yi ñu war a jël ci moom waxin ne tey jii la mooyee ànd gën a jafe tey la àdduna gën a jaxasoo tey la teqali ko gën a am kon gisee kon waris naa jàngataat kon jikko soxna Jaara te moo waral jotaay yii jàngataat ay jikkoom jël ci ay bindu yu mën a defare suñu jamonoy tey te benn jikko képp na ko waxee ca la sëñ ba wax ne ku ñu wax ku mat sëkk royukaay te loolu góor jigéen a ci yam mooy dañuy wax ne jigéen war nañ ko roy waaye du jigéen rek góor njiit war nañu ko ndax day jigéen ju man góor kon ku nekk te benn jikko képp ku ko jël ci moom mën nga ca defar sa tey ak sa ëllëg ndax lu baax lu nekk mbokkam lay wër ne bu seen leer lewoon ca matt ga wax ne yu baax yi dafa mel ni aw say wu ñu boole takk te tëdd na jàkk say wa yanu yombut ñu tas ko kenn ko nekk jox la ca ak matt ne la sa matt gii kat boo teqale ko moom ku la xam na la xam ak matt gi ku la dégg ne la dégg ak matt gi ku la gis na la gis ak matt gi foo toll na koy làng-làngee nen nag kenn bu jógee ci mbooloo su yegg dañuy wax nañ yebal nañ dañuy yeble ku ko seetee na nga téyeel sama tukko yi di ko fonk di ko teral di ko toppatoo su keneen ñëwee nga boole ko mbokkam ma boole leen teral boole leen fonk dafay lag dootu dellu it su yàgg ñu yebal keneen su ko ñëw nga defaat noonu moom itam day toog di dem mu ne ñett bu jógee ci mbooloo suñu jugaat mbooloo mi fiy jógadoo su mbooloo mi yëpp jógee ñëw na nga boole leen teral ñu bokk toog kon genn mat nga yoon léegi say wépp di fekk si bu baax sax ca way ca deng bu yàggee jikko yëpp fekk si ko li ñuy wax ne parité sëñ bi laa jax bu juñu na ko léegi mooy soxna jaar te fi ne yu baree baree baree bari xam nga bu njëkk jigéen ni ko doy del woon lu jiitu lislaam nga ne amul benn xaq amutoon kaddu daawuñ ko boole ci dara gàcce gi gënoon a rëy ci joj jamono mooy jur jigéen gàcce gi gën a rëy mooy jur jigéen lislaam ñëw sang leen bañ set ne leen ci société bi ngeen bokk am ci xàq ju rëy boole leen la la lañ war a am lépp mu jox leen ko ba mu sëkk noonu lislaam yi nag mosuñoo tekk seen ngemb te duñ ko tekki ila an yarisa allahu al ard suñu boroom wax na ko duñ dañ di xeex ak yéen ba keroog ñu leen di jële ci seen diine ndegam mën nañu ko nda it yahuud ak nasaraan gërëm mukk duñ am lañ bëgg mukk lu dul ngeen topp seen diine ñoom bàyyi seen diine yéen loolu nag gannaaw suñu bopp moo ko waxal boobu kon mooy wane ne kon ngembali du tekki ko saa su nekk lu nekk dañ ko indi lañ bëgg na mooy delloo jigéen fa mu nekkoon bu njëkk ci doyate gis nga lu ñuy publicité di jigéen la ñu futti ba mu set publicité ko ko jigéen di ko woon boppam naa ko góor gënu la fu mu taxaw taxawal ci wetam fi ne yu bari sax du ci bëgg a dugg du ci bëgg a xóot waaye fi ne jigéen julli ñu war nañu jógaat bu baax a baax a baax ndax fii ñi ngi jëmbat yoo xam ne bu bu jógee surtout kon de bi nga xam ne moom la ñu moom lañ bëgg a yóbbu assemblée yu baree baree bari am na ci yoo xam ne mooy bu bu bu amee mooy kenn dootu yilif kenn kenn dootu yilif kenn wane nañ ca ne soo amee doom ju jigéen li fekk amul dix-huit ans soo ko mayee yaa kan ko may dañ jàpp da ngeen violé dañ leen di tëj sa doom bu amee 18 ans lu mu bëgg a def amoo sañ-sañu tere ko ko moo sañ tànn lu mu bëgg a def lu mu bëgg a doon wala lu mu bëgg a def mu def ko ñaar sa doom soo ko bëggee yóbbu daara su ci yaayam ànd du dem ak yu baree ba dem ci junjooyee rek loolu kon mooy bu jàllee mooy kenn dootu yilif kenn mooy sa njaboot gi nga gi sa biir kër amuloo sañ-sañ ci ñoom loolu na kon doon taxawaay boo xam ne loo xam ne xam nga bu njëkk ay jamono jamono yàgg jamono Senghor parce que bind code de la famille boo xam ne bi ni bii la xaw a deme waaye sëñ Cheikh Fatma turandoo sëriñ bi moo ca jóg bind ca téere boo xam ne euh, da ko tuddee dog yàlla moo féete kaw kalimatullahi hiya hiya al-ulya bi mu bindee nag code de la famille boobu l'islam bi nga xam ne lii l'islam nangu mu dem ci mboolem sëriñ si ci réew mi ku ne moom la nga jàng ba noppi signé wax ne ci lii laa ànd loola moo tee loola jàll ba tey ji na mën loolu ndax population bi rek ñooy ñooy réew mi lu ñu àndul loolu du am kon nag la lépp ñu war a jàngaat kon bu ñuy jàngaat ji ko soxna jaan loolu lépp bokk na ci yi nga xam ne war nañ ko war nañ ko caa roote ngir mën cee tabax sunu tey waaye waajal ci sunu ëllëg waxtaan wi am na solo bu ñu toppee commentaire yi mën naa gudd lool waaye ñu ngi sant baax a baax euh, euh, soxna màggat ci waxtaan ñu mu ko traité am na solo lool te yaatu na may sa jàng tomb yu bare bare ñu ngi jégg lu baax a baax ñu ngi ñaan suñu borom mu gën la kattanal yokk xam-xam bi gën a leeral sa xol ak sa làmmiñ ba nga àggal si yéene te dëppoo cee ngërëmu soxna Jaara ñaan suñu borom boole dimbali boole defal tawfiq ci nu ci ak ñu te saxal na ci te def nu dégg dégg dégg taalibe Sëriñ Tuubaa sëñ Tuubaa naganu sunu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi